أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين القائل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون suratu huud aaya xamsuun wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira المنزل عليه قوله تعالى يا قوم لا أسألكم عليه أجرا in ajriya illaa ala alladi fatarani afala taaqiluun suratu huud aya waahid wa xams amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi soppe yi xarit yi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di sargal ñëpp mais di ndokkeel ñëpp tam ci xew-xew yi jiital ci ndokkeel yi kilifa diine yi a imma yi jàngalekatu diine ji te mooy asatiza yi ñoom ñëpp waaye di ndokkeel itam borom kër gi ak njiitalu kër gi ak ñëpp ñi fi liggéey liggéey bu rafet bi seen mbok seen xarit Aboubacar Faye moo dellu siwaat ci jotaay bi nga xam ni moom lay faral di am ak yeen jaajaaru yonente yi te ñu toll woon ci yonte yàlla huud alayhi salaam juróom-ñeenteelu jotaay jàll na tey mooy fukkeelu jotaay bi nga xam ne moom la ñu am ak yéen ak yonente bu mag boobu ñu tuddee huud huud bokk ci giir gi ñuy wax aad ñuy ay arab pur su ko defee niñ ko baaxoo di defee ñu dellu siwaat gannaaw bu ñu santee borom bi subhanahu wa yàlla mi warul mujj gu rafet ñi ko ragal ñu ngi seede tey déggal ne moom rek moo yelloo ñu jaamu ko ci dëgg moom mi moom ñëpp moom lépp xam lépp subhanahu wa taala amul ku muy bokkal li muy def amul ku muy diisool lu mu bëgg a amul kenn koo xam ne dina ko jàppale ci lépp loo xam ne bëgg na ko amal njëriñ ak loor ci moom la nekk waaye itam xam ab absolu ci moom la tàmbalee ci moom ba nekk subhaanahu wa moom mi waxte lu mu wax dëgg la yàlla ne wa ila aadin yónni naa ci giir gi ñuy wax aad seen mbokk ma ñuy wax huud allahu akbar seen mbokk ma loolu itam weesu woon nañu loola ndax jàngat nañu te mooy baatu mbokk ci ay mbokkam ku ñu yónni mu dem ci ay mbokkam feeñal mbokkoo googu mu am ci ñoom xam naa bu amee ku leen di naxit moom bokku ci bu amee ku leen di wax lu amut boobu moom bokkul ci lool kon yonente yëpp boo leen boolee ñoom ñëpp ñu yàlla ñoŋal la ci ay caaxaan yàlla ñoŋal la ci ay wax yu amut yàlla ñoŋal la ci leneen loo xam ne waxuma la nit simple waaye nit ku nite jombante na di jege loolu wala mu di koy def ba mu yeggee mu jëfandikoo qaala yaa qawm een nit yéen ñi nga xam ne nit laa ngeen doon ay nit ma bokk ak yéen allahu akbar ma lakum min ilahin gayru man kat damaa ñëw pour leeralal leen ne kat amu leen benn yàlla bu dul yàlla boo xam ne moo yelloo ñu jaamu ko yelloo ñu sukkandiku ci moom yaakaar ko joyal suñuy mbir yépp booy tawxiidul xaalis lillahi subhanahu wa taala يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله أكبر yéen samay nit yéen samay mbokk jaamu leen yàlla wéetal leen yàlla dëggal leen yàlla topp leen yàlla bu leen ko boole ak lenn bu leen ko boole ak kenn ndax xamaluma leen beneen yàlla budul moom allahu akbar in antum illa muftaruun bu ngeen ko fi bàyyee di jaamu leneen wala déggal leneen wala topp keneen li muy tekki mooy loolu da ngeen ko fent da ngeen ko fabriqué da ngeen ko tor ngeen ko tor muftaruun su ko defee lii ma lay wax di feeñal mbokk gi ma mbokk ak yéen di feemal nekk nekk ma nekk yéen ak ñeewante ba mu am ci yeen bu leen yaakaar dama ko dem ngir am lu ma yaakaar ci yéen moo tax mu teel a dégaase yaa qawmi yéen sama laa asalukum alayhi ajra allahu akbar samay nit yéen samay mbokk effort yi may def coono yi may def ñàkk yendal ñàkk fanaanal nekk bi ma nekk ak jigéen di jéem a góorgóorlu di jéem a jottali li yàlla bëgg laajuma leen ci benn pay yaakaaruma ko itam ci yéen laa asalukum alayhi ajra allahu akbar laajuma leen ci pay laajuma leen ci dara allahu akbar in ajriya illa ala allah fee mu ne in fii mu ne in ajriya illa ala alladi fatarani allahu akbar ki ma yaakaar mu fay ma daal mooy ki ma sàkk ki ma fent ki ma fi indi allahu akbar kon wootekat bu ne jàngalekatu diini bu ne imam bu ne la war a nekk sa taxawaay ak ñi ngay jëflanteel mooy bañ a aj sa xalaat ci ñoom bañ a aj sa xel ci ñoom bañ a sukkandiku ci ñoom bañ a sibo bañ sibooru waaye fexe ba man sa bopp boo manee sa bopp moom sa bopp boo manul sa bopp dinañ la manal te buñ la manalee sañal la kon ku ne di waxal yàlla ku ne war ngaa fexe ba loolu nga dégage sa responsabilité fexe ba booy jog nga def fexe ba la nga la tax a jóg bu ci aj bu ko aj ci nit ñi bu ko aj ci kenn bàyyi ci xel borom bi subhaanahu wa mi nga xam ne moo la sant liggéey boobu ngir roy ci mbooleem yonente yi waaye ngir roy ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy chefu mbooleem yonente yi gis ngeen ki bokk ci njabootam wala kii di Huud alayhi salaam gis ngeen yaa qawmi laa as'alukum alayhi ajra in ajriya illaa ala alladi fatarani afalaa taaqiluun yéen samay nit man kat lii may waxanteeg yéen laajuma leen ci benn pay laajuma leen ci benn yool laajuma leen ci dara laajuma leen ci tus ki ma yaakaar daal ki ma ci sukkandiku ki ma ci bàyyi xel mooy sama boroom mooy ki ma sàkk ki ma fi indi ki may dundal ki may defal lépp lu ma amandi ci teraanga te it moom laa gëm moom moom itam maak yéen laa bëgg ñun ñëpp ni ne caw utali jëme ci moom suratu huud aya juróom fukk ba aya juróom fukk ak benn afala taaqiluun ndax du ngeen sukkandiku du ngeen xalaat du ngeen jëfandikoo seen xel yi pour mën a topp yàlla mais pour mën koo jaamu soril ko lépp lu yellul waaye soril ko lépp lu jaaduwul mais soril ko lépp lu daganul wa ya qawmi istaghfiru rabbakum gis nga fi mu fëlee ak ñoom gannaaw bi leen sante ñu jaamu ko wéetal ko topp ko waaye sukkandiku ci moom joyal seeni mbir yépp ci moom leeral ne li mu leen di wax kat su yaakaaru ci kenn yaakaaru ci lenn ku dul borom bi subhanahu wa taala li ci des mooy mu woo leen pour delloo leen ci yàlla ñëpp sukkandiku ci moom ñaan ko mu jéggal leen baal leen comme ni ngeen ko déggee woon ci jotaay bi wees kon mbokk yi kon bu ñu naree tàmbali tey fi ñu teg ma leen teg la woon seen baaraam te mooy fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastaxlifu rabbi qawman gayrakum wala tadurruunahu shay'an inna rabbi ala kulli shay'in xafiid allahu akbar kon lee loolu nafar la woon pour def li ñu tuddee rabt bayna al maadi wal laaxiq jéem a takkee li wees ak li dégmal fii laa leen tegloo woon baaraam fii lañu ñu war a tàmbalee tey allahu akbar te mooy fa in tawallaw lii ma leen di wax yéen itam seen taxawaay bi ngeen am ci bañ a dégg bañ gëm ba tax sax ngeen naan li ma dal tey mooy seen xërëm yi moo jeexital ci man ba li ma dal dal ma ma bugg leen a woon ne kat xërëm yooyu du ñu tus mënuñu dara ki man dara mën a lor mën a jëriñ muy borom bi subhaanahu ndax lu ñu waxoon in naqulu illa taraka baadu alihatina bi suu li ñu li ñu am kay mooy li la dal tey ba tax ngay waxee ni taxaw nii dëgëree bopp ci lii suñuy xërëm mi seen jeexit moo dal ci sa kaw moo la teg lu bon li nga xam ne moom nga def gis nga ko moom mu leeral ne wane ne kat moom bokkut ak ñoom àndul gëmul àndut ak ñoom inni ushhidullah washhadu anni bari'un mimma tushrikun déggoon ngeen loolu ci jotaay yi wees kon fii fa in tawallaw bu ngeen fetteerloo wéri ci seen dëgër bopp ci bañ a gëm yàlla bañ koo topp bañ a jaar ci ndigal na ngeen xam ne subhanahu wa ta'ala dina fi yebal ñeneen gannaaw bu leen fi jëlee wuutalal leen ñeneen ñoo xam ne te du leen ko mën a wàññi dara ci loolu ndax borom bi subhanahu inna rabbi ala kulli shay hafiz yàlla mooy ki nga xam ne lu ne wattu na ko lu ne man na ko lu ne am na ko subhanahu wa taala kon wala tadurrunahu shay'a te loolu du ngeen ko mën a wàññi dara du ngeen mën a lor borom bi subhanahu wa taala ci loolu mu bëgg a def inna rabbi ala kulli shay'in hafiz yàlla day lu ne moo koy wattu lu ne moo koy surveiller lu ne moo koy sàmmal boppam subhanahu wa taala kon ci càmmam googu dañuy ñaan borom bi subhanahu wa taala mu sàmm ñu sàmm suñuy kilifa sàmm suñuy borom yi xam-xam mais sàmmal ñu suñuy réew ci bépp fitna sàmmal ñu ci suñu réew ci bépp danger sàmmal ñu suñu réew ci bépp lu jalgati ak lépp loo xam ne wuute na ak luy tax ñu am jàmm ci ko suuf mbokk jullit ñi loolooy li am walamma jaa amruna yàlla nee na ba nga xamee ne suñu mbir ma ñëw te mooy man nar leen a alak ñoom ñaar najjaynaa huuda fexe naa ba musal yonte la walladina maa ak ña gëm yàlla ànd ak wut bi rahmatin ci yërëm bu ma leen yërëm bu jógee ko ci man yàlla wa najjaynahum min adabin ghaliz allahu akbar allahu akbar borom bi subhaanahu wa taala allahu akbar xoolal rek li borom bi subhaanahu wa taala wax allahu akbar yàlla nee na kon ñoom bu fekkee dañoo dummóoyu bañ a gëm yàlla bañ a jaar ci ndigal bañ a topp yonente ba ci ñu bokk ànd jaamu yàlla kon topp ñu yonent bi pour jaamu yonent bi yonent ab yonent kenn du ko jaamu ab yonent kenn du ko ñaan ab yonent kenn du sukkandiku ci moom da ngeen di ànd nga topp ko ngeen ànd bokk jamu yàlla subhaanahu wa taala nitu yàlla itam kenn du ko jaamu kenn du sukkandiku ci moom mais dañuy ànd ak moom ñun ñëpp ñu bokk ànd jaamu yàlla wéetal ko kon loolu mooy cosaan loolu mooy li nga xam ne mooy li am loolu bi nga xamee ne nu lu Huud uh, leeral na wax ni yàlla bëgg si boo waruwul kenn fayul bor ci kenn waaye leeral kam te laayu kattanam ak li nga xam ni moom la ko yàlla sant na ko leeral ñoom lañ ko tontu mooy lee fa ñu mujj nag mooy jamono ju ne bu nitu yàlla taxawee wala nit kuy taxawee taxawaayu yàlla taxaw ci diineem ji di ko défendre di ci woote bu yàlla dogalee ñeneen lu contre ko bu musiba di dal ci ñooñi ko contre ci la musiba ba day dal ci ñoom lay dal ñoom la yàlla di wane ne ñoom ñoo alku ki nekkoon ci santaane yàlla moom la yàlla di faral moom la yàlla di dimbale kon ñun ñëpp mboole seen góor ak jigéen mag ak ndaw li ñu war tey mooy taxaw ci ay santaane borom bi subhaanahu lépp luy tere ñu sori ko lépp luy tere ñu sori ko duñ ko jege ci lu ñuy wax ak lu ñuy def loolu mooy li nga xam ne mooy li ab fa in a fa in taaradu wa tadabbaru amma jitu bihi fa ma alayya illa ba illa qad ablagtukum kulla ma arsalani llahu bihi amarani bi iblaagihi bu ngeen dummooyoo bañ a topp ci li nga xam ne moom laa leen indil man doonuma ci lenn lu dul man yàlla daf ma yónni ne naa leen jotti ji te def naa ko ci li ma yàlla yónni wa qad qumtu alaykum alxujja wa qad qamtu alaykum alxujja wa sa yaxlikukum rabbi wa yàlla dina leen alak indiwaat ñeneen ñu bokkut ak man indiwaat ñeneen ñu bokkut ak yéen yeneen i nit allahu akbar wala tadurruuna allaha darran kabira a yaxlifuunakum ñeneen ñoo xam ne bu ñëwee dañ leen di wuutu fii fi ngeen ne tey wala tadurruuna allaha darran dararan kabira du ngeen mën a lor yàlla genn lor gu mag goo xam ne ci loolu mbëgg a def muy wala sagira بتكذيبكم وإعراضكم لأنه غني عن عباده إن ربي على كل شيء رقيب فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به yàlla mi nga xam ne lu ne moo koy wottul boppam du ngeen ko mën a lor genn lor gu mag wala gu ndaw ci weddi gi ngeen di weddi ak dumooyu gu ngeen di dumooyu ak foñ gu ngeen koy foñ ak ñàkk a dégg ay ndigalam bañ a jaar ci lim bëgg loolu yàlla ci boppam moo may wattul boppam moo may aar waaye mooy aar lépp lu ne ndax baatu shay kullu shay la yàlla wax inna rabbi ala kulli shayin xafiid noonu lu ne yàllaa koy aaral boppam kon man ci biir kaaraange googu ci lay ne kon yéen bu ngeen nanguwut seeni pexe yu ngeen ma mën a fexeel du ngeen ma mënal dara kon loolu xam leen ba loolu amee borom bi subhaanahu wa taala nettali wa lamma jaa amruna bi ihlaakihim ba nga xamee ne suñu mbir ma ñëw na mooy waxtu bi ñu war a jeexal ci àdduna jot na ñoom ñooñee te mooy ma war leen alak sallam naa huudan walladina amanu maa muccal yoon yonti yàlla huud ak ñi gëm yàlla ànd moom bi rahmatin minna allahu akbar ci yërmande boo xam ne yàlla nee na maa leen ko yërëm wa sallamnaahu min aadabi shadid azabna bihi qawmahu alkafirin waaye itam ma musal ko itam ci mbugal gu metti googu nga xam ne moom laa mbugalee ay nitam ñooñi nga xam ne ñooy ñuy weddi woon yàlla loolu mbokk jidit ni mooy di am kon fépp foo gisee nitu yàlla nit ku jub taxaw ci njub dina am ñeneen ñoo xam ne seen intérêt nekkul ci njub seen intérêt ci leneen la nekk su ko defee kooku du ñu bëgg kooku da leen di gêner pexe bu ñu am lu ñu man danañ ko ko fexeel kon yow miy wax ak ñoom bu fekkee da ngaa ajoon seen intérêt wala di leen sibooru ci la ñu yor tax ba nanguwoo wax dëgg bu alkande ñëwee boo moytuwul da ngay des ci biir kon imam bu ne boroom xam-xam bu ne jàngalekatu diine bu ne la war a doon sa taxawaay mooy taxawaay yonente yàlla nu te ñoom ñëpp yonente yëpp daanaka loolooy seen kàddu lii déggoon nañ ko ci Nuux déggaat nañ ko ci Huud dinañ ko déggaat ci dinañ ko déggaat ci yeneen i yonti ma yaa qawmi laa asalukum alayhi ajra yéen samay nit lii may wax ak yéen li ma seq ak yéen laajuma leen ci benn pay laajuma leen ci dara yàlla laa yaakaar moom laa gëm moom la bëgg teyta moom laay séentu ci moom war maa fay loolu bu doxee ñu ànd ak loolu nanguwuñu ba fetteerlu sax ci weddi yàlla ga ak kéefër ga ak réeréeru bu yàlla di ñëw ak ay mbiram li xew fii moom lay xewalee fépp moo tax mu ne wa lamma jaa amruna bi ihlaakihim bu mbir ma jotee waxtu ba jot waxtu bi ma leen war a alak jot kenn mënatu ci dara ndax mënuñu ñoo dellu ginnaaw nangu ñoo tuub nangu ñoo jéggalu nangu ñoo dellu ginnaaw nangu ñoo jaar ca la yàlla bëgg te jaarale ko ci ab yonent lu ma def dama musal yonente boobu ñu teg ci seen bët muccalaale itam ña nga xam ne ñoo gëm yonente ba ànd ak moom mooy ñi jotoon a gëm donte le bari waaye loolu amul solo la am solo mooy nekk ci bëgg ndax bari ngeen wala bariwu leen amul solo li am solo mooy nekk ci njub donte le kenn nit la nekkal ci njub bul xool majorité bi ndax li gën a bari yàlla da leen a ŋàññi walakin akthara annaasi la yaqiluun ñi ëpp ci nit ñi amuñu xel ñi amuñu xel du xel luwuñu ñi ëpp ci nit ñi ay yéefar lañ kon fexeel ba nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla ñi jaar ci ndigal looloy li am looloy li nekk kon baloolu loolu amee sallam naa huudan wa sallam na alladina amanu maahu bi rahmatin minna ci yërmande boo xam ne ci man yàlla la jógee niltuhum boo xam ne defal naa leen ko wa sallamnaahum min aadabin shadidin azabna bihi qawmahu alkaafiriin ak musal leen itam ci mbugal bu metti mbugal bu tar boo xam ne mbugal naa ko nitam ñooñu ay nitu huud yooyu nga xam ne ay yéefar lañu moo tax yàlla jeexalee wax ci fi waaye ci feneen dinañu jëm feneen ndax foofu la ñuy jëm mu seeti wa tilka aadun jahaduu bi ayaati rabbihim wa asaw rusulahu wa atbacuu wattabacuu amra kulli jabbaarin anid wa tilka aadun aada ak ay nitam ak ñamu àndaloon luy seen mbir yow suñu borom jahadu dañoo weddi foñ bi ayaati rabbihim ci seen kawteefu borom mais seen aayaat yi nga xam ne yàlla indil na leen ko tegal leen ko yemuñu foofu wa asaw rusulahu ñu ab yonente bi yàlla yónni woon ci ñoom mooy yonente bi yàlla te mooy yonente yàlla huud wattabau ñu topp amra kulli na anid allahu akbar ñu topp mbiru képp koo xam ne dafa weddi yàlla di rëy rëylu mais dëng wéy ak ndëgg teem jabbaar anid mboraakoon boo xam ne daa booleeg ndëggte ak njubadi sax ca lool loolu foofu lañ jël ba loolu amee wa utbi'u fi hadihi dunya la'natan wa yawma alqiyama ala inna aadan kafaru rabbahum allahu akbar ala i ala bu'dan li aadi qawmi huud wa tilka aadun kafaru bi ayaati llahi rabbihim wa asaw rusulahum huudan wa ataacu amra kulli mutakabbir ala alxaq taax taaxin laa yaqbaluhu wala yadcanu lahu allahu akbar aha wa tilka aad yooyu mooy aad ñooñee mel melokaan boobu ñoom ñooy aad ak ay nitam ñoom dañooy weddi aaya yàlla yi aaya seen boroom ñu weddi moy yonente boobu yàlla yebaloon te mooy huut ñu topp koo xam ne kuy réy ci bañ a nangu dëgg bañ a déglu dëgg bañ dëgg ak gàntu ko bañ ko déglu waaye itam bu jibee itam nga bañ cee wommatu nangu ko te looloo mooy li feeñ waaw taaxin ku bew laa yaqbalu alxaq wala yadaanu lahu du toroxlu du topp dëgg lu tax parce que mbewteem ak ndëngteem ci li nga xam ne moom mooy li daanaka loolu dafa xaw a mel ni ñun tey loolu mbokk jullit ñi kon jamono ju ne waxtu wu ne la xewoon démb booboo nga àdduna di tukki léeg am ñeneen ote ñu taxawee taxawaay boobu waaye ñun loolu bu ñu yitteel li ñu war a yitteel mooy ñun fan lañu ñu war a féete féeteg dëgg féeteg njub féete lu yàlla bëgg ba bu yàlla di ñëwee ki mbiram mu fekk ñu ci loolu soppe yi xarit yi lii mooy li nekk lii mooy li am kon maa ngi ciy woo sama bopp di leen ci woo yéen ñëpp fii ci Tawhid TV ci loolu foofu lay xewee di ñaan yàlla kaddu yi fi kaddu bi di jibee yéen ñi toogoon uti di ñu yàlla yàlla sàmmal leen boppam aaral leen boppam defal leen teraangay adduna ak kër gii kaddu gi di jibee yéen ñi toog di ci bànneexu kër googu itam yal na ko yàlla sàmmal boppam soqali ko ba mu weesu fii mu toll ba dem ba bokk ci télévision yi ñuy coow ci réew mi ci benn gën a tegu ci yoon gën a organiser wu mais gën a ëpp popularité ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp yal na ko yàlla def yal na yàlla sàmm borom kër gi di sàmm ñi fiy liggéey ñëpp seen bokk seen xarit teg leen foofu seen baaraam ñu ñëwaat ci beneen jamono beneen bés ñu continuer waat ak yéen ci xuut ba ba ñuy jeexal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.